fuñu andé don doon benn xajuñu ci kenn woné ngeen ko tay ci ni mu gën a taaroo ngeen jëf suma ñëwé ba fi mënuma baña nuyu le premier ministre Mohamed John mang koy talal loxo du mu ñëw kóllëre la defe naa ni place am fii la et non fi mu nekk. merci aux populations de Djourbel. fii laa jàngee liggéey. bi ma génnee école def naa fii at kon xam naa Diourbel bu baax a baax a baax. fii ak ñaari at. ndox mi ñuy naan ndakaaru danañ ko naan Touba danañ ko naan Mbacké danañ ko naan Diourbel ba il faut que ma pour rendre un hommage mérité à un digne fils de Fatik, quelqu'un à qui je dois beaucoup de choses quelqu'un sans qui je ne serais pas ici aujourd'hui je veux nommer le président Macky Sall. Nous nañ fi un conseil présidentiel Je veux ngeen jàpp lépp lu ñu ci conseil bi exécuter dans les trois ans à venir allons def un programme spécial pour que les si kàttan bi pour ñu mën a def production bu am solo